convention bi nga xamné ne euh, FONGIP ak euh, FHS c'est-à-dire le fonds de l'habitat social euh, ñoko ko signé tey pour tambalé li nga xamné mom moy liguey bi dem ci programme cent mille logements li nga xamné mom moy la partie garantie mu nek aspect bo xamantene dafa am solo ci processus bi son excellence monsieur le président de la république sant nañ ko denk li nga xamné moy le fonds de garantie pour les investissements prioritaires Nous avons ci lu le fonds de l'habitat social ba tay ñu wara tok comme nous avons ko l'État, tamit li nga xamné programme andi logements je pense que nous avons ñuy wax état des lieux bi gouvernement du Sénégal def nako que presque 52 de la population ñu ci bëri ci location ñu gis ne ko aussi président de la république ku ko xam-xam ne dafa bëgg a delloo doomu aadama sa sa dignité ba tax na mu ne ci 12 millions de francs CFA mën na ci permettre sénégalais mu am këram loolu nag mu am benn fonds boo xamante ne euh, dañ ko jëlee ci taxe bi nga xamante ne moo nekk ci ciment bi nga xam ne loolu fonds de l'habitat social lañ ko versé convention bi buñ ko signé nak fonds de l'habitat social day am copar yo xamné aussi da koy verser FONGIP pour fonds mën a assurer lu wax garantie bi ci lolu aussi fàttaliwu ma won ci français mais dafa am lu wax effet multiplicateur moins 3 c'est-à-dire ñom nous ñu joxé 2 milliards mën nañu liggéey ba mobiliser 6 milliards de crédits auprès des banques loolu dafa am solo leneen li nga xamné aussi war nañ ko retenir mooy ñu mu concerné nu ñu tënkee liggéey bi mooy dafa am ñaari guichet guichet bi nga xam ne moo jiitu mooy guichet bi nga xam ne moo ëmb ñi nga xam ne ay secteur informel lañu amuñu salaire ñi nga xam ne aussi seen salaire weesuwul quatre cent cinquante mille ak ñi nga xam ne tanam ñu ngi ay sénégalais lañ nekk ci diaspora bi ñooñu ñëpp bu ñu leen boole dañ leen tënk ci li ñuy wax guichet un bi guichet 2 bi ñu jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk coopérative d'habitat yi ci loolu aussi ci biir liggéey bi am na lu ñuy wax quotité garantie ñu ne par exemple képp koo xam ne da nga nekk salarié FONGIP mën na négocier ak banque bi ba nga am quotité garantie boo xam ne daf la koy déposer cash collatéral 80 pour cent bu fekkee 80 pour cent pour ñi nga xamante ne nekkuñu ay salarié ñi nga xam ne secteur informel lañ ñi nga xam ne ay salarié lañu ñu wut ñu jox leen li nga xam ne moom mooy 60 pour cent donc loolu yëpp nag buñ ko waxee rek. Euh, damay wax ne son excellence monsieur le président de la république parce que xamna na ne que tay habitat social dafa nek lo xam c'est une priorité pour les populations sénégalaises motax tax mu lancé projet bi ba tax ñun ñun ñep dañu jël engagement liggéey ko ci num ko santaane ak structure yi nga xam ñom ñep ñoo ci nek pour que li nga xam ne bu ñuy yegg ci juroomi at yi buñ ko xayma mom ci bopam mu am ci satisfaction à 100